ci weeru consommé local bi jaaykatu dàll locale bi nee na mi ngi gis boppam bu baax donte importe bi yenn saay mu sonal leen. mi ngi dox gaa mais nag côté bi mu war a doxee des na waaw euh, xam nga des tamit euh, ñu bëri yeneen produit yi nga xamante ni mooy dugg ci ci réew mi tax na ba na mu waree doxe demewu nii jàpp na ne doomi réew mi bëgg nañu sax local bi waaye yenn saay qualité bi moo dul demee noonu. boo déggee nit naan la euh, du ma jënd du ma jënd consommé local c'est-à-dire dafa dafa daje ak yenn produits yoo xamante ne bi joxuñu ko ak xam amul finition te ñun ci finition ci la ñuy dox. et tamit des fois tamit am ñoo xamante ne bi liggéey ba duñ ko jox ak xam ba keneen mën nañ jënd benn dàll mu gaaw a dagg mu jàpp jàppale ñuy defar baaxut moo koy poussé muy dem ci importé yi. ñoom nag ñu ngi góorgóorlu bu baax ci façon yi dàll yu ne. xam nga façon dàll yi. yéen ñëpp ngeen ko doon gis da ngeen koy gis par importe donc léegi nag consommé local si dugg di ci def yu doy waar ay modèle yu graaw modèle yu bari modèle yu yéeme donc mu doon loo xamante si mooy li ma lay wax rek tey euh, liggéey boo ko joxee xam rek mën ngi ci am dara et puis boo nangoo création aussi daanaka importe bi doo ko faale moo tax sànq ma lay wax ne la importe bi bàyyiwuma ko sax xel far matériel bi rek moo leen sonal ndax seer. seeraay bi dong moo ciy nekk nag. li nga yaaw yaay waaw boobu la loolu moo am solo bu seer na. der loolaal day cher kilo onze mille la koy jaay donc talon yi ñuy jaay yu ñu la daan jaay trois mille cinq cent léegi dañ la koy jaay ba quatre mille cinq cent et puis yow des fois nga yàgg ak client boo xamante ne bii ñee lu ñu la yokk yokk yokk yokk yokk yow doo mën a yokk ak ay client day métti rek ngeen di débrouiller xool la nga ko doon jaaye noo def ba ba ba teg ci dara. après leneen li nag nga xaar client boo xam ne mosoo koo xam noonu lay demee <laughs> waaw waaw waaw noonu lay doxee mun a ñàkk. <laughs> si weeru consommé local bi jaaykatu dàll yi ñu ngi gis seen bopp ndànk-ndànk waaye bu ñu sañoon mu gën a yaatu te ñu gën a ñaax sénégalais yi ñu gën a sopp made in Sénégal bi.